asalaamaaleykum mbokki auditeur ak auditrice rajo Afia FM ñu leen di nuyu di leen ziar di leen dalalaat si beneen émission boo xamante ni ñu ngi ci fas yéene ànd ak waa bureau conseil ado bu Fass Gueule Tapée Colobane déglu ngeen ci émission bi ñu génn waxtaan nañ bu baax ci wàllum euh, li nga xamante ni moo di projet Fass E ak euh, wàllum SRAJ yi ak ndaw ñi ban taxawaay lañ la ñuy am euh, ngir mën a waxtaan ak seeni i moroom yi ndaw tey nag li ñuy waxtaanee moo di ñoom ndaw ñooñu lee seen seen ah, taxawaay ci jamono ji nga xamante ni ñu ngi nekk ci wàllum ah, ah, Covid 19 di ko xeex ba tey mu nekk projet boo xamante ni ñoom dañ ci lëkkaloo ak ñi di waa ministère de la jeunesse à travers PPJ commune Gueule Tapée Fass Colobane ak ñi di waa UNFPA projet bi nag tudd projet Fass euh, di Fass émergent ba tey ma ci ànd ak Babacar seen ak Khadija Niass ma tàmbalee ci yow di la nuyu. waaw ah, maam Seye maa lay fay maa ngi nuyu auditeurs ak auditrices yëpp. di mm-hmm. nuyu di bëggee képp ki nga xam ne yaa ngi déglu Afia FM heure bi mm-hmm. rajo bi moom daanaka suñu rajo la émission bi ñu fi def bii passé gis nañu mu toll. Mm-hmm. ñun waa bureau bi nag ñoo fi dellu si waat tey pour wax lan wax ci Covid 19 bi ak campagne de sensibilisation bi ñu nekk di mëne ak naka lañ koy mënee. d'accord Khadija Niass. asalaamaaleykum bi ñu ngi leen waat waa di rafetlu jotaay bi di nuyu auditeurs yeeg auditrices yi. di leen waxaat ni que ñoo fi nekkaat pour wax ci euh, Covid 19 bi ak suñuy campagne de sensibilisation. merci campagne de sensibilisation ci lañ tollu jamono joo xamante ni coronavirus du Covid 19 euh, wër na ndombo suñ ko mënee wax noonu euh, dëkk bi yan action jamono ji ngeen tàmbali di mëne ngir mën a aar wala ngir mën a soññ askan wi ngir ñu ko feebar bi. bu fekkente ne suñu commune Fass Gueule Tapée Colobane. dañu commencé di def ay campagne de sensibilisation group bu nekk ñu boole ci club des jeunes filles am koo xam te ne day représenté CCA bi am bàjjenu gox aussi. Mhm. dañuy dugg ci kër yi def VAD mooy visite à domicile dugg kër par kër. gën a sensibiliser ci feebar bi gaa jotoon nañ ko def ñu gën a dolliwaat sensibilisation mhm. parce que boo xoolee léegi euh, feebar bi boo xoolee dafa am relâchement parce que ñu ci bari gëmatuñu feebar bi. Mhm. da ngay dugg si kër di sensibiliser sax ñu ne la ndax corona existé na yow sax yow miy sensibiliser dangay tiit parce que loo xamante ne def na ravage dans le monde entier nga ñëw toog ñu lay laajte ndax existé na nga xam ne inconscience am na foofu waaw gën a di leen gën a ñaaxaat rek waaw ne leen ñuy takk masque yi en même temps aussi UNFPA dañ ñu jox ay kit yoo xamante ne kër bu ñu dugg bu matee dañ koy séddale que ça soit savon gel euh, hydroalcoolique gel liquide et cetera yooyu yëpp kit yooyu dañu ko jox pour ñu koy séddale ak masque merci euh, Babacar si sensibilisation bi Khadija wax na ko léegi danga gis ni benn relâchement dafa am et aussi communication bi dafa am foo xamante ni dépassé na ko ci feebar bi ndax yaakaar naa bu leen joxeeti loxo yi moytu leen rassemblement yi affaire yooyu noonu nit ñi dem na ba ancré ko seen bopp mais combat bi ñuy mëne mooy combat masque yi comment vous faites nan ngeen di def ba nit ñi ngeen dugal seen bopp que ni l'heure est grave et que takk masque yi mooy rek jamono ji li nga xamante ni moo leen mën a sauver waaw mooy li Xarija doon wax rek juste dam leen di rappeler ne kii mooy suñu deuxième fas de sensibilisation. deuxième phase waaw bureau conseil bi ñuy sensibiliser sensibilisation progressive lañ def. Mm-hmm. maanaam bi feebar ba xaaruñu ba tey rek commencé sensibiliser. Mm-hmm. bi fi corona duggee lañ commencé sensibiliser. Mm-hmm. boobu jamono ji sensibilisation bi am na fu mu tolloon mesure barrières yi. à travers sensibilisation boobu on a réussi à visiter deux mille quatre cent ménages. yoo xam ne Gueule Tapée Fass Colobane lañ nekk. Mhm. ménage bu ñu visité jox nañ la kit maanaam eau de javel masque ak affaire yooyu. Mhm. ma moyen de protection yi individuelle yi. Mhm. léegi après quelque temps gis nañ ma euh, feebar bi dafay évoluer kon sensibilisation bi tamit dafa war a évoluer. moo tax suñu deuxième phase bi sensibilisation bi dañ ko def intégré maanaam pour continuer ci continuité wu stratégie bi maanaam Covid 19 bi am na lu bëri lu mu baare loo xam ne gars yi xam nañ ko. moo indi crise bi. mais am na crise yi nga xam ne mu ngi lalu ci ginnaaw Covid bi te gars yi gisuñu ko duñ ci waxtaanee. lu ci mel ni ñun tey ji ñu doon ñu doon gis mbaax ba tey ñu ngi gis mbaax. Mm-hmm. ñu doon am infection ba tey ñu ngi am infection. ñu mm-hmm. ñu doon ñu doon ñu ñu doon violé ba tey ñu ngi leen di violé. Mm-hmm. ñu doon subir violence basée sur l'urgence ba tey ñu ngi koy subir. Covid bi nag warul mun a tax ba suñu liggéey stoppé ñun combat boobu la ñuy mëne. mais quand même am na benn ralentissement bu ci am. waaw am na ralentissement bu ci am. moo tax deuxième phase campagne bi dañoo fàttaliwaat gaa yi ne Covid bi am na mu ngi fi instant yi boo gisee président li mu wax ne nee nañu essayer de vivre avec le virus. Mm-hmm. léegi comment vivre avec le virus boobu nag moo jaral a laajte moo tax suñu deuxième phase de sensibilisation bi loolu yëpp dañ ko ci dugal boo xoolee euh, club des jeunes fii ñoom ñëpp am na kit yoo xam ne lañ leen ko jox espécialement pour deuxième phase de sensibilisation bi. Mm-hmm. léegi na comportement bi. ñun dafa dafa di doon loo xam ne dañ koy déplorer. surtout venant des jeunes comme nous. Hmm. mesure barrière yi gars yi xam nañ ko d' accord le port des masques est devenu obligatoire. Hmm. mais dafa mel ni am na ñoo xam ne port des masques kañ la obligatoire bu ñu gisee homme de tenue rek. Hmm. bu ñu gisul homme de tenue port des masques bi devenu turul obligatoire. du loolu takk masque signifié ne dama ragal virus bi. takk masque en deux termes lan lay signifié que ne man yaru naa yar boo xam ne yar nañ ma yar boo xam ne tey jii su ma takkee masque. ruus naa lor maam sëy mii ma toogal. Mm. parce que feebar bi lu ci gën a grave dafa am ay ñoo xam ne ay malade asymptomatique lañ. maanaam mooy ñi nga xam ne dañuy feebar ba wër te ñu am benn symptôme. Mm-hmm. tey jii moo tax ma bien portant ñàkk bien portant damay sol masque pour ma protéger man. Mm-hmm. bañ ku ma contaminé waaye pour ma protéger ki may waxtaanal bañ ku ko contaminé. Mm-hmm. bu loolu yëpp weesoo gars yi période bii gis nañ ne booy génn da ngay génn pour ngir lu nécessaire rek. maanaam te gars yi gis nañ ne temps bi dañ ko séddoo boo toogee ci kër yaa ngi ci réseaux sociaux yi. Hmm. moo tax dañoo lancé woon campagne de sensibilisation digitale boo xam ne à travers page Facebook yi la ñuy def ay émission ay webinaire hmm. père éducateurs yi di ci waxtaan followers yi di commenter. ñu dugg à travers da nga am hashtag wala. waaw am nañ page Facebook am nañ page Instagram lépp dañuy organiser ay ay session de webinaire tamit maanaam à distance ñu ciy waxtaan ci promulguer ay idées leen wax ne service de santé de la reproduction yi ba tey day continuer. Covid mu ngi fi mais ba tey day continuer li ñu doon xeex ba tey dañ koy xeex. Mhm. xëy na ni koy xeexee mooy xaw a changé rek mais ba tey ñu ngi ci. Mhm. mais ñu bari dañuy wax naan euh, corona peut-être au début. Euh, dana wax naan jeunes yi la doon la lay dal mais après ñu gis nii mag ñi aussi ñoom it da leen di dal ba ñoo suy loru am ñu naan sax jeunes yi ñoo koy indi ci kër yi mag yi dee si taxawaayu jeunes yi si jamono ji nga xamante ne ñi ngi xeex coronavirus Khadija di jeunes yi ñu si bari nanguwul respecter quand même les mesures barrières faut le dire du nangu ta takk masque du nangu utiliser gel wala du nangu euh, raxas seen i loxo rassemblement yi mi ngi am ci plage yi te loolu yëpp jeunes yi ñoo koy def nan ngeen gisee taxawaayu jeunes yi ak benn instant mën a jàpp ni ñàkk euh, manque de conscience quand même dañ ko nemmeeku ci ci ci jeunes yi. bien sûr man côté boobu noonu damay tàmbalee ci di wax ni que. Sénégal dañu war a arrêter di déglu fake news yi mooy euh, fausse information yi parce que dafa am ku newoon ni que euh, corona du dal du dal xale yi mag yi kese lay dal corona ah, pour dire vrai y a pas de tranche tranche d'âge ku nekk lay dal amul mag amul ndaw jusque boo xoolee xale yi nga xam ne dañ leen di tere ñu génn effectivement parce xale yi ñooy mën a génn ci mbedd mi indi ko mag yi parce que mag yi ñoo ngi ci biir kër yi toog mm-hmm. te loolu boo xoolee li koy faral di indi que man dama foog ni su bu fekkente ne jaar nga école jàng nga di nga am une certaine éducation ba nga xamante ne yow am na loo xamante ne waruñ la ko wax sax yow yaa koy def sans que état bi wax la ko wala ñu lay forcer si dara. Mm. parce que loo xamante ne santé la que ça soit say mu dal sa yaay wala mu dal sa maam tey jii nii amoo moyen yoo koy fajee day metti te da leen di indil problème. Mm. donc loolu boo xoolee si taux taux d'analphabétisme bi nga xamante ne moo ngi augmenter parce que jeunes yu bari jàngatuñu ils n'ont pas ils n'ont pas un esprit intellectuel boo xam te ne dina leen permettre ñu leen di tere ñuy bàyyi man mhm. foofu laa ko jàppee en fait. Mhm. waaw ma juste ma ma ma appuyer Khadija ci li ngeen di wax noonu tey jii mooy li ma la doon wax sànq mbir da koy jox boroomu mbirim bul ko jox waayam bul ko jox sa waay tey jii amaana communication bi balaa meewu mag ñii di communiquer nag. mais pour man communication bi dafa war a changer. dafa war parce que ay stratégie progressive nga war a teg. Mhm. c' est bien beau nga yeewu dix rek ne non on a tant de lii tant loolu baax na. Mhm. mais boo xoolee comportement yi di changer mais jëmul ci kaw muy changer négativement. yow tam mhm. da nga war a changer ni ngay waxee. fan yi gars la la ñuy wax cas communautaire moo ñu sonal. mais réponse communautaire moo ci mun dara. par exemple man tey jii jeunes yi du pour ma vanter wala dara Gueule Tapée Fass Colobane man amaana man tey jii su ma taxee di wax ak ñoom. man la ñuy gën a déglu ko maam sey mi nga xam ne xamuñu ko. Mm-hmm. moo tax seen stratégie de communication stratégie de défense pour lutter contre cas communautaire yi dañu war a communauté bu nekk ñu xool nan la ñuy collaborer ak ñoom comme li xew Gueule Tapée Fass Colobane comme ni ko mairie bi initié. Mm-hmm. waa UNFP di ko jàppale. ñoom ils ont pris les jeunes de la commune maa ngi la koy wax sànq suñu première phase euh, campagne bi entité yi fa nekk yëpp am na fa am na relais communautaire. am na ku jóge ci association des femmes am na ku jóge ci association sportive ñu jël jeunes yëpp dajale leen. Mhm. ne leen ah ñun de li fi am nii la ñu bëgg ngeen wax ñu nan ngeen koy xeexee. Mhm. ñu proposer leen plan bu solide. Mhm. ñu gis ko ne ko ah wax fa dëgg yàlla yi amul dara ñu ciy yokku. wàccee ñu sur le terrain ak les moyens moo tax gisoon nañ ci résultat léegi nag man yeneen commune yëpp li ma leen di conseiller mooy. réponse communautaire rek moo mun ci lii dara. gis nga jeunes yi boobu ñuy révolté. ah c'est pas parce que dégguñu waxu maam Sey wala dégguñu waxu Diouf Sarr wala dégguñu waxu kii mhm. ki waroon wax ak ñoom peut-être man sama gis-gis moo waxul ak ñoom. Mhm. parce que ki bokk ci ñoom buy wax ak ñoom kooku la ñuy gën a mën a déglu ko keneen. Mhm. mais nag justifié wu ma yenn comportement yi nga xam ne am nañ ko surtout ci temps yi may gis gars yi lever état d'urgence bi. kooku dañ koy interpréter neneen. maanaam 23 bu ñu di jógee 22 heures dem 23 heures wala ñu jub indi 23 heures bi dafa am ay raison yu nekk ci ginnaaw raison boobu. Hmm. te ku ki ko dindi amul temps pour expliquer lu tax. Hmm. man c'est pas parce que ne 23 heures la couvre-feu bi dina nañ 23 heures rek damay continuer de wëndeelu ba 2 heures du matin hmm. bi ma doon heure bi ma doon tëdd laay tëdd. ki ko dindi lu tax mu dindi ko parce que ginnaaw 23 heures boobu noonu am na keneen ku ci doon liggéey di ci am loo xam ne moom la ci doon suturalee njabootam te mënu ko woon am. ndax Covid bi. waaw d' après mu gis ne lii mënul continuer de maa ngi koy dégg mu wax taux de croissance bi fi mu nekk ak fi mu jëm bu ñu continuer nii. Mhm. maanaam crise sanitaire bu amee. lu ci ëpp day jur yeneen crise dina jur crise économique dina gis jur crise sociale léegi nag boo bañee loolu dal la say mesures da nga koy jël en fonction de ñi la wër yëpp moo tax des fois gars yi di lever comme couvre-feu bi. Mhm. daf dindi nañ ko vingt trois heures. Mhm. mais loolu n'empêche heure bi ma doon tëdd laay tëdd. Mhm. loolu laay conseillé ñu def ñëpp. maanaam rassemblement yi dindi nañ ko mais taxul man may dem ay place di rassembler wu di fa daje. parce que ba tey feebar bee ngi fi. loolu nag loolu laa bëgg a gars yi di comprendre moo tax jeunes i côté boobu noonu dama leen di gën a ñaax. est-ce campagne yi parfois il vous arrive ngeen dem à la waxtaan fa jeunes yi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo fa nekk. comme genre dafay nekk benn VAD. d'habitude dans les temps normal suñu campagne bu dee SR bu dee SR temps normal bu dee SR dañuy wàcc ci plage yi dañuy wàcc ci lieu de culte yi dañuy wàcc ci lépp. Mhm. prix public ak privé yi mais ak Covid bii nii demaguñu plage benn yoon. parce que plage yi c'était fermé comme ñun boo xoolee Gueule Tapée Fass Colobane dañoo am dafa amoon interdiction. Mhm. vu ko ne amul cible. maanaam dañ ko tere policiers yee ngi fa. Mhm. amul cible marché Soumbédioune lañ jot a dem. pour sensibiliser ñi fay jaay. parce que ñooñu ci marché bi ci ci ci ci bee bi la ñuy jaayee mais période Covid bii ni nag jotuñu dem ci plage yi parce que plage yi amuloo woon nit. mooy li mu la doon wax rek stratégie progressive la. xam nga fu mu nii dindi nañ état d'urgence bi. léegi demee suñu gisee ne plage yi maanaam comme ni ñu ko gisee ci yenn zones yi gars yaa ngi koy fréquenter massivement. rien ne nous empêche ñu ñu dugal ñu intégré ci campagne bi. dem ci plage yi pour jëm leen dissuader. te dañu leen di dissuader dañ leen di fekk ci lu ñu bëgg wax ak ñoom ba ñoom ñoo ñuy gën a ñoom ñoo lay naan carrément kii li mu wax dëgg la. fii à partir d'aujourd'hui du fi ñëwati. d'accord mbokk yi xarit ñu leen di fàttali rek ba tey yéen a ngi ànd rajo Afia FM ak ñi nga xamante nii di waa bureau conseil ado Fass Gueule Tapée euh, Colobane euh, ci li nga xamante nii moo di projet bi ñu dëppee Fass EDI euh, Fass émergent ñu ànd si ak waa UNFPA si njàppandalu ministère de la jeunesse ci lii di PPJ ak commune Gueule Tapée Fass Colobane tey ñuy waxtaan ak waa bureau conseil ado bu Fass Gueule Tapée Colobane xar euh, Fass Gueule Tapée Colobane Babacar Sène ak Khadija Niass ñoom la ñuy ànd ak ci waxtaan yi ñuy ay père euh, éducateur Khadija ci wàllum sensibilisation bi jëm si jeunes yi ak rassemblement yi nga xamante ni commencé nañ ko di ko def jëm ci euh, plagiaires yu ñu mel. waaw dëgg la parce que boo xoolee peut-être Babacar moom moo dul wàcc ci plage yi mais bu fekkee tey actif sur les réseaux sociaux da ngay gis ni que même si biir feebar bi. rassemblement doon na am si plage yi. Hmm. parce que boo xoolee plage yu Cambérène je pense bërki démb laa fa romb gis nit ñi toog ci plage bëri fa ba bëgg dee di féexlu. Hmm. donc foofu relâchement am na fa parce que mënuñu ne virus dafa am ñu tourner à de gauche à di gis ay rassemblement hmm. en plus euh, sensibilisation bi li si gën a neex mooy suggestion yi ngay jot ci kër yi parce que on a à avoir des suggestions yoo xamante ne benn paa bu dëkk si koñ bi dafa ni pour euh, xale yi nga xamante ne dañ nekk di taxawaal ci mbedd bi à chaque fois da ngay sensibiliser seen parents yi maintes fois. Hmm. mais sensibiliser ku jàng ak ku jàngul mënul nekk benn yow yaa xam ne ngay waxee ak moom rek. ba mu ba déggal la. Hmm. Hmm. parce que des fois aussi nga dugg ci kër di sensibiliser. parce que ñu si bëri dañuy jaawale sensibilisation bi ak séddale denrée alimentaire yi. da dugg si tak ñu ne la. ceeb bi ngeen di séddale wala lan la nga ne sensibilisation des fois ñu ñàkkal la fayda des fois ñu tontu la lu nekk nga siy gis mais booy defal yàlla rek da def te yàlla tax en plus aussi am na suggestion bu ñu jot jot ni que par exemple euh, quartier bi di nga gis ay jeunes yoo xamante ne yu góor dañuy chômer que ça soit góor wala jigéen pourquoi pas mairie bi jël leen di leen fay journée soit 1000 francs wala 2000 xale bu ñu gis ci mbedd bi ngay dox ñu dàq la nga dugg suggestion la woon aussi. pour gën a mën a éviter feebar bi. Mm-hmm. waaw euh, bu ñëwaatee si wàllum SRAG récemment gis nañ ay jeunes yoo xamante ni euh, euh, dañ dajaloo woon si appartement di dem ay activité di amal ay activité sexuelle li ko waral xam ngeen ko xale yi jamono ji dañoo am temps dematun école jàngatu jàngatunu donc pour ñu ñu dem di di di def dem à la débauche dafay dafay dafay yomb quand même diir le dire donc yéen ban taxawaay ngeen di am ci loolu. si jamonoy Covid 19 coronavirus ak xale yi nga xamante ne am nañ temps ngir euh, di amal ay activité sexuelles euh, ba li am euh, bu yàggul dara am ba ñëpp teg ci seen bët. waaw mooy le motif bi gars yi dégg fan yi gars mhm, mhm. wu ma ah, mais les responsabilités sont partage même ba ci sensibilisation bi mu ma yeggali foofu rek man mënuma concevoir en tant que parent yow nga toog sa biir kër bàyyi sa doom ci biti ma loolu mënuma ko concevoir. mais tamit Babacar faut reconnaître kat xale bi ñuy dem kenn du leen yëg. waaw moo tax ma ne euh, les responsabilités sont partagées mooy mooy li ma la wax ci sensibilisation bi laa doon wax nga toog ci biir baa sa doom léegi quant à booy yooyu noonu mooy vidéo yi ñuy gis loo xam ne dañ koy déplorer di ko ñaawlu. Mhm. mooy li ma la wax bureau conseil bi lu mel noonu lay xeex. parce que ñu bëri ñàkk information bu baax moo tax ñuy def li ñuy def ñu ci bëri bonuñu ah. des fois sax gars dañuy naan non ñii seen parents yi la mais amaana seen parents yi bu ko yëgee sax dañuy crise tellement que nu ñu yoree seen doom. Mm-hmm. mais lenn rek a leen ci dugal àndandoo bu bon ak ñàkk xam. des te xale yooyu la plupart ay mineur lañ. waaw maanaam amuñu information bu baax. Mm-hmm. te jii bu la yàlla dimbali woon ba ngay fréquenter bureau conseil bi wala nga bokk ci club des jeunes filles maanaam na serait-ce une semaine man njo am naa njort naa ne loolu doo ko def. parce que dina la jox ay information yi nga xam ni da ngay xam ne àdduna dara darul yaa xamti mhm. magum jëmm laa la wax loolu bu ko defee dañ koy ñaawlu waxuma la xale boo xam ne mineur la mhm. léegi loolu noonu yëpp maanaam da ngay apprendre say erreur gaadu ci commune Gueule Tapée Fass Colobane mais ci jeunesse su Sénégal la mhm. léegi li am fële li raam li ñuy naan li raam ci ñag bi la jëm mooy dox di dem mais on ne sait jamais ça peut être foofu ñooñu ñoo fësle mais peut être est ce qu'il n'y a pas d' autres jeunes yoo xamante ni ñi ngi dans d' autres localités di euh, def lu ni mel alors que kenn xamu ci dara. waaw par exemple man su may wax je vais parler en général du ma blâmer parents du ma blâmer jeunes yi parce que boo xoolee comme wax nga ko jeunes yooyu noonu ay mineurs lañ. Mm. te boo xoolee jeunes yi bu ñu tollee âge de puberté. dañuy dañ dañ dañuy révolté wu en fait. ñu mm. amul ku leen di yedd wala di leen gindi ne leen jaar leen fii def leen lii côté boobu noonu dañuy dañuy dañuy dañuy def lu leen neex parce que âge puberté moo toll noonu. ku fi mm. nekk jaar nga si. Mm. da ngay foog ne bu àdduna bi doon wàcc sax da koy téye. donc du coup dañuy soxla conseil parce que boo xoolee aussi benn côté aussi si parents yi la parce am na parents yoo xamante dañuy tës tësi nekk si mbedd bi di. test si pour mën a am lu ñu indi si biir kër gi mais aussi bi di toog di waxtaan ak sa doom parce que toll nañ foo xamante ne euh, le fait de communiquer dafa révolu parce que mën nga toog waxtaan ak sa doom parce que léegi dañuy toog di waxtaan ak parents yi comme sujet tabou yi man je pense que am na parents yu bëri yoo xamante ne brisé nañ ko parce que dañuy toog di waxtaan ak seen doom parce que parce qu'on est au vingt et unième siècle hmm. donc parents yi ñooy war a gën a toog di waxtaan ak seen doom yi am temps di toog di leen surveiller je pense que loolu bu ñu ko defee dinañ si génn. Mm-hmm. waaw bu ñëwaatee par rapport ak seen sensibilisation bi ngeen di def euh, c'est vrai jamonoy Covid 19 leen wax euh, ñuy éviter rassemblement yi war a respecter distanciation sociale yi euh, comme Babacar am na sànq lu mu soulevé ni day day day jox day def prestation devant trente jeunes filles comment vous faites léegi pour par exemple pour trente jeune filles nan ngeen di def ngir mën a waxtaan ak ñoom. respecter en même temps les mesures barrières. waaw say kaw loolu la olof Ndiaye naan booy digle sanguwaay day fekk nga set. mënuñu mhm. sensibiliser ba pare di ressembler. Mhm. kooku moom mënuñu ko. causerie yooyu noonu ça se faisait avant Covid bi la. Mhm. mais ak Covid bi nii bi mu amee mooy li ma la wax stratégie progressive la ñu def lépp lu la Covid bi xañ instant yi da ngay toog xool noo koy contourner. loolu moo waral webinaire yi. ak Facebook live yi ñuy def. maanaam tey jii jeunes yi ñu leen di rassembler autour d'une non non dañ leen di rassembler ci biir plateforme yi. ci mm-hmm. internet yi parce que ñu ngi fa. dañ leen di dem fekk fi ñu nekk nga toog ak ñi ay vidéoconférence waaw des fois ñu joxe ñu joxe ñu joxe benn thème ci benn panel. ay échange interaction kii wax li kii wax li kii wax lii. mais est-ce que foofu message bi dina passé Babacar parce que ku xam Sénégal xam ne am na wàllum internet wax dëgg yàlla du fépp nga mën a accéder à internet da ngay nekk sax au cœur de Dakar pour nga accéder à internet day day jafe donc foofu Covid bi est-ce que du freiner un peu euh, liggéey bu am solo bi nga xamante ni yéen a ngi koy def. non du ko freiner un peu sax beaucoup la koy freiner. <laughs> du ma ne un peu la koy freiner mais mais tamit da ngay dem ak moyens yi nga am quoi. maanaam mënuñu mënuñu tere rassemblement rek nga toog croiser les bras. Mhm. te xam ne li doon am ba tey mu ngi am. mu mhm. li doon am ba tey mu ngi am Covid bi kenn xamul kañ la fi jóge. Mhm. vu que ne président nee nañ on essaie d' apprendre avec le virus kay. xaw ma en présence du virus. léegi nag moo taxoon ñu contourner loolu mais li nga wax noonu dëgg la souci la boo xam ne dañ ko ci am. maanaam ñi nga adhérents ñi la ñi la doon déglu ak ñi lay déglu jamono ji bokkul. bokkul parce que au delà de connexion bi sax maanaam disponibilité bi heure bi may disponible kii mën na bañ a disponible heure boobu noonu. Mhm. moo tax ma ne la après Covid bii nii concernant même sax bu dul jeunes yi Sénégal dañu war a xool suñuy comportement yi ñu amoon avant ak yu ñuy ami ji après. Mhm. parce que man mënuma concevoir heure bi vingt et unième siècle nga bëgg a def cours ak internet waxuma la ñàkk connexion sax mais prof bi lay defaral cours sax parce que li may wax ni man. non non au delà de connexion prof bi lay defaral cours sax da ngay sentir ne kii maanaam maîtriser wul bu baax li muy def bu dee prof bi laa lax de léegi élève bi nga xam ne day déglu prof bi. Hmm. no blâmer wu ma prof bi. c' est parce que ñoom seen prototype loolu dugaluñ ko ci woon tey jii man mii soo ma naree defaloo causerie ci ci ci ci ci internet bi wala webinaire boo ma bu may def causerie bi damay am problème yu dul jeex di taal micro bi fii son bi di génn fii may xalaat ne est li may def mu ngi dugg ci parce que. avant Covid bi musuñu ko xalaat. Hmm. maanaam dañuy improviser. Hmm. léegi nag Covid bi bu jeexee autorités yi euh, après Covid dañuy ñaan autorité yi maanaam. Hmm. mbir mi dañ mbir mu nekk dañ ko jox bërëm mbir mi. maanaam nañu fexe ba maanaam Covid bi euh, maa ngi déglu ci benn son xaw ma kan moo ko doon wax ci ci ci ci rappeurs yi nee na Covid mënoon na nekk sauveur de l'humanité mais dégâts yi mu def rek ko yàqal. Covid bi jàngal nañu dañu war a set. Mm. Covid bi jàngal nañu taxawaalu bu bëri baaxul. jàngal nañu lu amul solo amul solo génn ca ba mm. muy moom rek. Mm-hmm. léegi nag tax na ñu bàyyi surcharge eh, euh, oto yi. non mais lu bëri lu bëri la. changé changé na lu bëri. léegi nag après Covid bi comportement boobu laa bëgg sénégalais yi adopté rawatina nag jeunesse bi. Mm-hmm. Mm, Khadija. waaw parce que on va devoir parler sur niveau élèves yi parce que mënoo jël élèves yi toog leen ñu confiné pendant. trois mois je pense. Mhm. presque trois mois après nga bëgg ñëw ni que dañuy def examen août. loolu ban niveau la élève bi di am en fait foofu il faut que ñu wax ci en plus boo xoolee euh, pour wax la ni que sensibilisation bi jàllul bu baax parce que stigmatisation dafa am trop trop parce que nit mën na ñëw jël ci nit sa ci koñ bi. Euh, ne que daf dañ koy testé nax am na Covid ou amu ko même bu dellu siwee nit ñi da ngay gis ni ñu koy dawee wala naan kër gii la amoon donc stigmatisation boobu noonu tant que arrêté wul rek solution du am. Mm. parce que du question que nit dafa am corona rek da nga ko war a daw non non. mën nga jëlee ci moom laajte ko lan moo la daloon loo doon éviter dugg na fi génn fële mais stigmatisation bi c'est trop. Mm. loolu dañ ko war a arrêter problème majeur bi loolu la stigmatisation ak relâchement bi. parce que pour nit takk masque sax da ngay sonn. des fois nga dugg ci kër di sensibiliser nga ne nit ki an sa masque fekk moo ko fas ci sëram wala moo ngi ko dugal ci ay poche. te loolu nekkul utilité masque yi donc il faut ku nekk def effort individuel man du ma blâmer état état lu mu mën mu ngi koy def donc du coup citoyen bu nekk da nga war a fournir effort. personnel pour liggéey bi mën a yomb. Mhm. surtout si port masque yi parce que li nga wax léegi rek jënd masque dugal ko sa poche wala sa saag loolu c'est pas balaa ngay gis euh, balaa ngay takk masque bi da ngaa gis policier pour mën a takk sa masque kon cela veut dire que yow tu te pas protéger wa sa bopp mais plutôt. force de l'ordre bi nga gis moom nga moom nga ragal moo tax nga takk sa masque alors que dëgg yàlla comme dem nañ ba ni le port du masque est obligatoire c'est parce que am na lu ñu mën a aaree moo tax euh, ñu ñu ñu wax loolu euh, bu ñu ñëwaatee par rapport ak ak euh, SRAJ yi yéen c'est ministère de tutelle ministère de la jeunesse la jamono ji ku ni ku ni ku ni Covid aussi laal jeunesse bu baax a baax parce que tamit jeunesse bi ñu ngi subir bu baax lii di lii di Covid bi ministère de la jeunesse c'est vrai que seen partenaire la est am na benn taxawaay boo xamante ne mu ngi koy taxawu ci lutte bi ngeen di amal. waaw ñu ñoom kay euh, du benn taxawu sax avant Covid bi wax fa dëgg neex yàlla taxawu nañu fépp Covid bi. Mhm. maanaam ñoom instant yi nii mooy li ma la wax. joxuñu ñu bopp doo ci làmmiñ xaw ma ndax olof Ndiaye nan la koy waxee. Mhm. dañuy ñëw yéen yéen fi nekk ci commune bi yéen yéen xam li fi xew ak nan la fi xewee. Mhm. qu'est-ce que vous nous proposez maanaam pour jeunesse commune bi maanaam mun a mucc ci lii. Mhm. gis ci lii seen bopp. Mhm. gars yi réunir jeunesse bi tamit maanaam association yi ñi leen di jiite ku nekk gars yi proposer ay idée dem ba ci kaw deuxième campagne de sensibilisation bii nii ñuy mëne bi nga xam ne UNFPA moo ko lancé. waa PPJ waa mooy ministère de la jeunesse à travers PPJ. Mhm. indi nañ ci seen participation bu baax bu baax maanaam fii ci kii yeeg ci lépp indi nañ seen participation. Mhm. te pare nañ ànd ak ñun fii ba Covid bi tant que Covid bi mu ngi fi. Mhm. stratégie bu ñu teg rek. après da leen koy sumetre ñoom ñu xool bu ñu ko atténuer dañ ci adhéré wu. au delà de ministère de la jeunesse tamit maire bi wax fa dëgg yàlla dañ leen war a jaajëfal parce que lii dafa raar maanaam nga dugg ci commune. mu am activité yu toll nii gars yi boo degee ma ne la dafa raar ci suñu dëkk yi la raar mais dëkk yi développé yëpp loolu mooy lu normal activité yi bu amee dañuy woo jeunesse bi woo jeunesse yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au cœur ne leen lii ak lii am na lii moo ci seen wàll. Hmm. naka la ñuy def. ñun ñoo ñëw taxaw ne leen nii ak nii lañ bëgg ngeen gunge ñu. Mm-hmm. wax fa dëgg yàlla buñ ko munee dinañ ñu gunge. Mm-hmm. buñ ko munul it dinañ ñu jéem a gunge. Mm-hmm. waaw mais ñàkkul quand am na ay obstacle yoo xamante ni am na ci ci ci wàllu liggéey bi. ah obstacle yi moom mënul ñàkk. xam nga liggéey boo gis ak i obstacle am. obstacle yi ñu jàkkoonteel yi mooy des fois da ngay dugg gars yi ne la li ngeen di def nii baax na. mais peut-être réaction bi moo yéex. mais nag xam nga loolu population bi ñu la waxee loolu da ngay dëgg la rek da ngay dëgg noppi. Hmm. mais institution ak administration dafa am nu muy demee. Hmm. des fois sax yenn procédures yi mun nga ko tëb. maanaam dara bu amee rek population bi lan la ñuy bëgg sama genre yi. Hmm. riposte ci saa si. maanaam dara bu amee tey suba ñuy riposte man loolu laa bëgg. mais boo nekkee ci biir processus bi da nga xam ne affaire bi demeewul noonu dafa am ay procédures yoo xam ne dañ ko war a respecter. moo tax mooy waral ñuy dugg des fois gars leen ñu ah ñun de amuñu masque. Hmm. wala yéen de seen masque yi da ngeen ko yéex a joxe yéen da ngeen yéex a sensibiliser loolu loolu ci gàllankoor yi ñu amoon ci campagne bi la bokk. Hmm. et aussi am na ay inconvénients yoo xamante ne da ngay dugg ci kër di sensibiliser kenn du la déglu wala des fois nga dugg ci ñu ne bu fekkee agent mairie bi nga. toogal na le que ñun dañoo jug pour sensibiliser leen gën leen yokk jom gën leen wax ni que feebar bi mu ngi fi. Mhm. inconvénients yooyu dañ koy faral di jànkonteel. Mhm. Euh, parce boo xoolee affaire yi waruñu si sax jiital wala ñuy xaal ñu naa jox nañ la ceeb pour nga sensibiliser wala nga déglu sensibilisation bu ñu koy def intérêt commune la. Mhm. waaw parce que bu ñu duggee di sensibiliser mën na ma jëriñ ko mun na jëriñ keneen ak keneen. Mhm. kon nañu bàyyi euh, intérêt bi ñuy jiital te déglu nit ñi nga xamante ne soit mairie bi yónni na leen wala état bi yónni na leen te xam ne que euh, te xam ne que duñ fa jëlee négativité positivité mhm. moo tax ñu jug. Mm-hmm. manko di sensibiliser suñu neexoon ñu toog suñu kër ne ñun xam nañ gestes barrières yi suñu waa kër ñu ngi koy respecté ñun nañ toog suñu toog mm-hmm. mais dañu porté wu volontaire mm-hmm. pour aider notre commune kon ñi ci biir commune bi tamit ñoo ñu war a jàppale pour liggéey bi gën a yomb parce feebar bi bu fi jugee pour ñëpp la ñi ci biir commune bi rawatina jeunesse bi surtout jeunes les jeunes de la Médina gis ngeen seen comportement la dernière fois euh, jëm ci ci ci ci couvre-feu bi alors que ça n'était pas vraiment exemple bu di ngeen jug pour relever défi boobu wane que ni jeunesse bu Médina nekkul jeunesse boo xamante ni ay perturbateur lan ay yàqkat lan. bien sûr parce que boo xoolee. mën na am sax jeunes yooyu noonu ñëwoon euh, Médina di créer propagande boobu noonu mën na am minime bi la am nañu parce que da ngay xool day am jeunes yoo xam ne dañuy jógee seen koñ ñëw si koñu jàmm mën nañ fa bañ dëkk après ñuy joxoñ baaraamu tuuma Médina Médina Médina or que am na koñ yoo xamante ne nekk na Médina ay yu baax ñu fa dëkk yu toog posé réglé mm-hmm. mais jusque média bi des fois dañuy faral di di di indi confusion dañuy gis dara xew rek ñu ne waa Médina la wala waa côté la or que loolu amul. Mhm. gaa mën na am mais concerné wul koñ boobu yëpp parce que des fois gisoon naa révolte di am ci ñu dëkk Médina naan je suis Médina je suis Fass et cetera yaa ngi comprendre. Mhm. donc gën leen ñaaxaar rek pour ñu gën a conscient waaw boo xoolee jeunesse moo yor réew. Mhm. ñun ëllëg ñun ñoo war a réew bi ñun ñoo war a teg jeunesse bi si yoon. donc dañu war a waaw franchement man loolu laa gis gën a conscient. Mhm. waaw mooy li muy wax rek maanaam fi mu toll nii man dama jàpp ne jeunesse bi dafa am ay urgence yoo xam ne am nañ ko maanaam urgence yooyu nañ ci jëm. Mhm. dafa am affaire yoo xam ne ay futilité la maanaam loo xam ne amaluñu benn njëriñ bu waruñu ci sax dégg comme li nga wax noonu que ce soit Médina phase Colobane Gueule Tapée ngay gis ku def loolu moom bi mu koy def. peut-être jël na engagement wu def ko mais xalaatul woon ne du ci kawam lay dal ci kaw commune bi yëpp lay dal ci kaw askan bi yëpp lay dal. Mhm. moo tax maintenant am na ñoo xam ne dañoo génn ñaawlu loolu canaliser waat booy yi maanaam ay jeunes canaliser waat jeunes yi. Mhm. am na ñoo xam ne comprendre nañ ne loolu act bu ñaaw la ñu ngi koy ñaawlu dootul am maanaam dara bu amee gaa dañ koy corriger ni ñu ko war a corriger rek ñu continuer ensemble. émission bi temps bi jeex na ñu bàyyi la nga tàggoo lancer waale sa message surtout ak mesure barrière yi. waaw maa maa maa maa maa lay sant maam Sey di sant auditeur yëpp rajo bi moom suñu rajo la dañuy kontaan di ñëw di fi def émission. Mm. parce que ñun ñaanuñu lu dul lii. gars yi ñu jox voix ñuy exprimer suñuy sentiment ak suñuy idée. Mm. waaw fii ko ne dañ toll ci Covid. wax waxaat du bëri wax ma rappeler rek maanaam distanciation physique bi ba tey nañ ko respecte muy un mètre. nañu éviter discrimination bi. surtout ak stigmatisation bi. coronavirus feebar la boo xam ne nit lay dal. jommul kenn dalay dal nga dem gaay faj la nga wër dem toog sa kër xale yi nga xam ne ñu ngi ci biir kër gi te jàngeetuñu école tëjul magum jëm bu toogee trois mois xoolul kay bu delloo école day am problème foofu bu ñu amee mag joo xam ne wala oncle boo xam ne mun na leen forcer sax s'il le faut pour ñuy xoolaat kay sa ngoon da ciy baax. bu loolu yëpp weesoo maanaam bu ñu respecté mesure yu waa kër docteur yëpp wax waa ministère de la santé yëpp ñu respecté à la lettre ku ci munti doon saa si yeewoo na ñaanal boppam ñaanal ñëpp. ndax feebar bi ñun nit yi la jaaxal mais jaaxalul yàlla. xëy bu ñu defee li waa kër docteur wax boole ko ay ñaan yàlla dinañ ci musal. di leen wax na nag bureau bi mi ngi fii ci commune Gueule Tapée Fass Colobane ci mairie bi. mun ngeen fa ñëw heure scolarisation ci lu mun di doon mun nga ñëw jël information gars waxtaan ak yow en toute discrétion mun ngeen ñu suivre itam à travers suñu page Facebook mooy Gueule Tapée Fass Colobane. Khadija nga tàggoo. waaw Mame Seye ñoo ngi lay sant di la gërëm. di gërëm Afia FM bi nga xamante ne moo ñu permettre ñu doon la voix des sans voix. permettre ñu ñu mën a exprimer wu. man benn message kese laa doon lancé muy ñun jeunes yi nañu gën a góorgóorlu gën a jàppante. gën a déglu ñi nga xamante ne ñooñu jiite suñu commune pour ñu mën a vaincre feebar bi en même temps aussi ku bëgg adhérer ci club des jeunes fii bu Fass Delorme bokk ci commune bi mën nga ñëw adhérer wala nga contacter ñu ci 78 468 81 79 bépp problème boo am boo ko fa indee wala nga bëgg bokk dinañ la ci dugal wax la critères yi en même temps aussi ñu club des jeunes filles dinañ jéem a arranger wu pour jéem di organiser euh, ay euh, ay ay cours yoo xamante ne dañ koy offrir dinañ ci jéem a toog waxtaan si pour niveau niveau d'étude bi parce que boo xoolee suñu club am na ñu nekk ay première année deuxième année am na ñuy def terminal am na ñuy def BFM. Hmm. am ñuy def CM2 donc pourquoi pas ñu jéem après Covid bi wala si Covid bi jéem a xool nan la ñuy ba di leen offrir ay cours yoo xamante ce sera intéressant parce que éducation bi tamit si la bokk. Hmm. Babacar Sène di ay père éducateur ñëwoon teewal fii waa bureau conseil ado bu Fass Gueule Tapée Colobane eh, ci émission bi léegi ñu doon waxtaan si wàllum SRAG ak eh, jamonoy eh, Covid 19 mu nekk projet boo xamante ni nag ñu ko dippee Fass di Fass émergent waa ànd waa e, UNFPA ànd si ak ñoom ak ministère de la jeunesse à travers PPJ ak commune bu Fass Gueule Tapée Colobane di jaajëfal suñuy invité ci waxtaan bu am solo bi xamante ni amal nañ ko fi mbokk yi bi di leen jox dig daje beneen yoon incha allah.